Cheikh Samba Diarra Mbaye nee na Samba Diarra Mbaye nee na Samba Diarra Mbaye nee na Cheikh Ibra raw nag maasam te defu ko jot sempi mu rawe aaram binam Fall Cheikh Ibra Fall raw raw nag maasam te defu ko jot sempi mu raw yaaram binam Fall inna suyooxa واصحاب سيوخ مان ñooy say jaraaf nga di chef yaaram binam faal si wan bakiina hum saadaatuna abadan nga xam ne doo ñoom du yow yaaram binam faal jamiu jiilika fii juudin wa fii karamin léewoon na ñook yow nga daan yaaram binam faal léewoon na ñook yow nga daan si xibra yaaram nga nam faal kula sawaadiina wal bii daani maasariim ñoo seede wax lii ci yow nga naam faal ñoo seede wax lii ci yow nga naam faal in xaala dayfun salaamun hinda baytika saa ma yaadi saa ak ñoom cheikh bi naam faal ina rijaala sidaadul mukrimiina maan lamboon na ñoog yow nga wub leen cheikh bi naam na ñoog yow nga wub leen cheikh Birame Fall cheikh Samba Diarra mbay ne na rijaala si daadul mukki mi namaan lamboon na ñoogew nga wub leen cheikh Birame Fall te taawalu li nay li baaxi kasa te kenn jotul la ci xel cheikh Ibrahima Fall yow yaaram nga cheikh Ibrahima Fall yaaram nga yow yaaram nga nam Fall xar ca aaraan ka si daadul lax yaaw maam nga dend leen naka der yow yaaram nga naam wa min hataayika awlaadu damin yaa taw di daw diraam ba fi yow yow nga naam awlaadu karmi habidun inda bayti kasa sayit lingeera ji seyni cheikh bi naam faal wa kullu man xadra maa xad unil tu yakun di roy ta xam ne du yow nga naam wala yu daanika fii asal xataadun bur yàlla moo la ko may yow yaaram nga naam faal wa man yu mayi ala man xat nul tuuna na mus mu xam ne du yow yow yaaram nga naam faal inal wufaada jëmean waa fi xiina taw di déglu tay sa ndigal yow yaaram nga naam faal wala yu xaalifu amran man amarta fa um ñooy jaam yu dul daw du yokkat Cheikh Binam Fall Cheikh Samba Diarra Mbaye nee ñooy jaam yu dul daw du yokkat Cheikh Binam Fall waa taaj waadu axraani samaani maal diful werante ci lii yow yaaram nga Cheikh Ibra Fall yaaram nga yow yaaram nga naam Fall Cheikh Samba Diarra Mbaye na alul hawaaji jaawu laasimi na bukaa fi yow ku dellu si dayre Cheikh Birahim Fall lakkal wilaayatu bayna naasu sag wàll yoo njëkk a feeñ Cheikh Ibra yaaram nga Cheikh Ibra Fall yaaram nga yow yaaram nga naam Fall lakkal wilaayatu bayna naasu zahiratan sag wàll yoo njëkk a feeñ Cheikh Ibra Faal yow yaaram nga yow yaaram nga naam faal halul balaaxati wal ashari xaatibatun mosuñu fee wax bu mel nii cheikh bi naam faal hum yam dawooka faqat lakinnahum jahilu yées nañu lii ma la wax yow yaaram nga naam faal cheikh samba jaara may leena hum yamdaaka faqat lakinnahum jaylu yées nañu lii mala wax yawaaram ngaram faal xadd fuqtaheeruuna fii juudin wa fii karamin samaas gi tayaa ci sut Cheikh Ibra Faal samaas gi tayaa ci sut Cheikh Ibra Faal samaas gi tayaa ci sut Cheikh Ibra yaaram nga yow yaaram ngaram faal samaas gi tayaa ci sut Cheikh Ibra yaaram nga naam faal xat caa zikru ko fii sarxin wa fii xarabin sa tur wi dem na basaam Cheikh Ibra faal yow yaaram nga yaaram nga naam faal lam yam doon soora kullal kiraami man ma way la man yaa ma saf Cheikh Ibra yaaram nga naam faal Cheikh Samba Dia damay leena lam yam doon soora kullal kiraami man ma way la man yaa ma saf yow yaaram nga naam faal subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wa salaamun alal mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin